kon yow suma la déggé bu baax da nga bëgg wax ni Biba nobul Eliman. mais Biba bëggul Eliman parce que ku xol ni mi doxalé nga xamni ki kii bëggul Eliman. paate mi nga may wax mo la ñëw xam nga kañ laa ko ci dégg. kan nga dégg kan c'est pas vrai kan lol dafa mëna nek nekk. nan lañu mëna naïvé comme ça ba Biba nekk ci kër gi deub kër gi def fi li yépp ba toroxal na fi sama yaay lii yëpp kon. yëg naa lépp dama bëgg nga wax ma nan nga téye sama kër sama njaboot noo leen jàppee woon dama bëgg nga wax ma nan nga jàppee woon sama kër ayaa